man maa ngi commencé kan laay wóolu ndax kenn xamatu xamatuñ kan ngay wóolu. ah kon Adja. nan dem nan dem ci morceau sa xamatuma ku may wóolu man. Birame Dieng sous les antennes de la 7TV c'est parti. nan la gën ma. te bëggul lom su ginnee di wax ci man lu ñaawa ñaaw kan lay wóolu su diggee nan bëgg ma te bëggul lom soo génnee di wax ci man lu ñaawa ñaaw man kan lay wóolu nga xamanteel léegi léegi te yal ci moom bu ko jox confiance ba mu ëpp ndax mën na laa war war te bari na bari na loole bul def ko gis rek def ko ni sa bopp nit ñi yemu ñoo ni baaraam yi wuute ni le xel yi nanga teew tey baadolo du jub gàcce te du sa jëm loo ko defal mu ni maa ko yeyoo waaru naa si jamono jiile ko ko ndekete yow su génne mooy sa noon di la waxal lu ñaawa ñaawa ñaaw ci mel ni Mara sama waa melul noonu ku ci mel ni bëgg woo naa la melul noonu njëkk bay naa la nga ni mënoo ñaaw Malik boore si Cees gaay benn dëkk ñaari gaar chéri day faatoo bàyyi faatu mu ndaw woon man kan lay wóolu si jamono ji man kan lay wóolu ko wóolu mu waru la si jamono ji man kan lay wóolu kóolute jeex na xarit amatul ñi ni am na waaye bariwul lay wóolu ah, jaral lu ñaaw bum la jaral lu ñaaw doomi yaay njaay may sa man de kan lay kan lay kan lay wóor loolu Jackson góor gi mbay kan lay wóor Sénégal Sénégalo kan lay wóor ah, Njaay may sa njaaye asiyatu asiyatu as yow la nu duppee Asiyatu mu sëriñ Babacar Si Maalik waaye Mara xam nga ne tey ma bàkk lan li bàkki buur yi ah bay mu na ndiir fay coow li coow li yaay borom may mun na may mun na. loolu waale mergaan. yow yaay jigéen ju mën gu wóoree. fay biiram loo ko way doy. lu rawal mergaan. tey daan. tey ma bàkk lan ni bàkki buur yeeg tam. waaw ndax yeeyoo nga ko. yaa ngi way waaw. dëkk ci dëkk bi. juddoo fi yaroo fi màggee fi te waxoo lu ñaaw defoo fi lu ñaaw Maymuna waaw. jigéenu Papa Ndiaye. maa la wóor. lii de oh, wi daa neexoon. ndeke man dama yab Maymuna. ah. bu ne may invité ay waykat. ma invité ñuy jaay bañ a dugub. Ah. ay suusal. Ah. ay waay waay tey laa dégg ay waay yu tegu ci yoon. man wàcc waa ma rey. wallaay fa mu jaar yëpp fa mu ko doon jeexalee. wallaay daa neexoon lool. man nag maa ngi doog a xam li tax biram kenn ko invité booy def Sorano ko invité ñoom gars yi. Oh, ko invité. biram wàññi wàññil mën gi. ah déet ah, affaire yi moom <laughs> yaa na xam yaay. wàññil mën gi. gars yi bëgg ñu ko mën de si dara deret la. dèjà si ñun la nekk dañ ko donn doon ko suñuy maam doon ko suñuy bàyyi. Hmm. mu naturel si ñun tamit. Hmm. man lépp lu mooy def rek dafay doon lu naturel. te ki may àndal aussi dama am lu jàng lu ma jàngee ci moom lu bari muy Youssou Ndour. Mhm. moo tax amoo droit def erreur. dëgg la Youssou Ndour ku mënul du ànd ak yow. dëgg la àndul nit nit du ànd ak nit ndax yaa ma neex wala loolu. ban année nga ànd ak Youssou Ndour. 2004 ba léegi ma ànd ak maa ngi ànd. 2004 Ndiaye mii fekkat na ma. loolu ça fait léegi 22 ans comment. Oh, ñaata avant ñu may dàq la ci la gën a kii. yow kenn dàqu la ko kenn dàqu la yow kenn du yow ndaanaan nga. sama xarit bi kenn du ko daan. mais way na ba way sama ñaari xarit. Hmm. mais ñi wax man wóoruma leen. mooy ñan. Jackson ak góor gi mbay mi. mbuur la nekk. loolu laa a a wóoru man. mooy ma leen. Ndiaye te man gën a bëgg a xam nga yéen wóoru ma leen. wooy wi daa neexoon. Hmm. mais bi mu tàbbijee ci Maymuna la wooy wi gën a neex. man xam nga ni Maymuna lu waay di wax man ba dugg ci Maymuna rek. Ah, a lay laaj mooy man moom. daal say rek. c'est la grande dame. waaw du nit. c'est la dame dotée d'une bëgg naa ko ba pare extraordinaire bëgg naa ko ba pare. kenn du moom Asi ah, way nañ sa patron de. waaw eh ku ñu bëgg sax <laughs> ku ñu bëgg moom wax ci moom day. ku ñu bëgg bari Sëñ Tuubaa waaw xoolal Pape Cheikh Diallo TFM. lu muy lu muy <laughs> alors <laughs> da bëgg ma promotion la kenn xoolu leen xanaa kenn te daal leen bi nga moom animateur yëpp moom la ñuy woo man loolu ma jaaxal kii daf ma jaaxal. <laughs> daf ma mais mais mais Mara am naa benn question bu important. Ah. parce que dañu gis ni yàgg na ci euh, li nga xamante ni mooy aar bi. Mm. yàgg topp Youssou Ndour. Mm. et puis euh, fu mu toll ni je pense que euh, bon à mon à mon propre avis quoi tollu nga foo xamante ne da nga war a ber sa daara mais de 2004 à 2023 ba léegi gisuma la nga nga arrêté bi nekk focus ci sa bopp am say album. peut-être am nga ko mais nga focus carrément ci li nga sa yëpp bopp la bett dara quoi. waaw loolu moom euh, ku nekk ñaan nga yàlla di aw nit bi des daal. loolu man mi ko lool. Mhm. waaye nag yoonu ndaw du gaaw. dëgg la on est mhm. a vie ki ci yaa yaa ngi dund rek. Mhm. di am sa wér-gu-yaram. dara jombul di liggéey. parce que am na benn. maire boo xam ni way na ba am ay soixante et quelques années ñu koy doog a ah Césaria Evra way na ba am ay soixante et quelques années ñu koy doog a découvrir mm. mu def morceau morceau bi génn toj àdduna mu def mm. album mm. am ci disque d'or am ci lépp donc boo dee roy si ñooñu di xool si ñooñu doo yàqamti si sa dara nekk si yoon wi rek la ci fekk rek nga xam ne loolu la. waaw loolu sax sori na ki ngay wax Paa Kéba yi Paa Kéba di. daa dem Paa Kéba Seck Paa jàmm am na jeune la jeune la commencé tëdd dëkk bi jeune jàmm lépp xew jamono. Kéba xale la Kéba xale ah. xale la moom Kéba juddagul jeune tout frais. xam nga Asi Asi fi muy waxee mooy. mille 2004 nga tàmbali ànd ak Youssou Ndour te lu jiitu 2004 fekk na nga tàmbali def musique waaw man ci Fatou Laobé laa njëkkee. ci Fatou Laobé nga njëkkee waaw moom laa njëkk a aw comme waykat. Ah. après ñëw ci mbay Dieye fay Mbaye Dieye a ñëw ci Youssou Ndour. ca nga ko awa woon est-ce que la daal xam nga. su Mbaye Dieye moom nga awa woon euh, mbaa su ma tëggee raas di ngeen ma ko. waaw raas Mbaye Dieye Faye buru ngéwél doo ma tëggal sabar. waaw cinq ma ci loolu. Mbaye Dieye Faye buru ngéwél doo ah, mooy sa maam doo ma tëggal sabar. mu sëyee soo awa jaay mbay jinal ñoo waaw ma ni. seng sengooy seng sengi biram kii yaay awa jaay mali bañ manga jaxeeri baay manga doomi ndey jibi ju bëgg naa la seeni bira jaayee man di bëgg naa la Serigne Mame Ndiaye loolu yàgg na de. aasi booba xale nga de. loolu année année la mille deux. deux loolu aasi booba jamono lion yi. gone nga am ay cent cent quinze ans. ay waay ji. non aasi <laughs> boobu aasi bu amee juróomi at maa juróom-ñaari at. que ah. amoon ay cinq ans. ay cinq ans sept ans waaw maximum. donc aas foofu lay waxee. yàgg naa toj réew mi de. waaw te raas it la. Ah. Eh, xam nañ ko de. léegi nag aar foofu lay waxee la moo tax 2004 ba léegi nga ne ci ginnaaw Youssou gisaguñu peut-être yaa ngi def sa ay projet bopp ay single yooyu mais pourquoi pas bokk ci biir tendance bi nag boo xamante ni dañ lay gis ngay jouer sa ay soirée bopp di ci def ci ay festival duñ leen benn benn wala boole biram te duñ ci boole biram jeg parce que mi ci yow te ndaanaan nga mën a way mais lan la biram moo préféré nekk aw rek di def ay kër di ànd ak Youssou di àddina biram dafa am lu ko manqué lu tax mënta demal boppam c'est quoi exactement le problème. Ah, en tout cas daal. maa ngi ci sama aar comme ni ko waxee rek. Hmm. di way mais yàkkamtuwuma sama àdduna. man maa doon koo xam ne yàkkamtuwuma. ok tey nag boo nekkee ci euh, daara di jàng. Hmm. da ngay bañ a wor man mënuma wor. ndax sama papa moom la woon. tey jii man normalement su dul woon aar bi ma dugg nii dama war a nekk takkat Seydina Mohamed. sallallahu alayhi parce que ñun ci loolu lañ judd. Hmm. donc kon loolu ma doon ci moom deret di ma doon ci moom moo tax xëy na ma am patience boobu. man dara réel sama bët Ndiaye mi xam na loolu fu ne dugg naa fa fu ne dem naa fa. Mm. ñi nga dégg ñëpp ñu siiw maa ngi leen di béggee di leen kontaanee. Mm. di leen ko yéene nag parce que tey waali bu siiwee wala Sidi Diop siiw Sénégal la. Mm. man tamit Sénégal la xëy na ñoom loolu leen yàlla jagleel. mais man tamit du ma forcé xam nga du ma forcé parce que damaa nekk ci liggéey nekk ci yoon te xam naa ne fi ma teg sama tànk moo ko teggiwul. ci kàttanu yàlla. mu yéex mu gaaw fi ñu toll man dinaa fa toll wala wala ma dépassé leen. dëgg la gis naa loolu mais dama yaakaar ni force boobu ngay wax am na loo ci waxoon bay jëfee force bi ngay expliqué. mooy ci ko moo way force bi. nañu bari dañu yaakaar ne man wax dëgg man mbay jëy fay bu ko forcé. mbay jëy fay bu ko forcé aya bay caani séeri mam yaaye oh. kii di jigéenam di mam kii fay waaw baayu mu xam waaye kay moo ko mën moom léegi léegi ci. allez-y bi nga am ak sa grande que gis nañu génne na. voilà Ami Collé gis nañu génne na clip duppee la ko mu doon loo xamante ni ku ko déglu même bu la xamul. xamul ko moom voilà ñëpp dañu ci yegg sa bopp ban rapport nga am ak moom parce que on on souvent. Euh, ci ci télé ñaar ngeen di ànd wala souvent ngeen di def comme gars yi nu ñuy def ay duo ak yooyu noonu voilà c'est c'est quoi votre rapport vous deux. mu doon suma mag bëgg ma loolu nag xam nga koo bëggul doo ko wax yenn wax yi mm-hmm. way bi ma way moom dafa maa kalaame ak adduna bi wala ak Sénégal mais dafa ma kalaame ak bi parce que moom loolu moo nekk ci loolu la yëg mm-hmm. xëy na li ma gis ci man loolu xëy na sax man baaxuma mm-hmm. moo boo gis sama di ko wax ndax wax sa mbaax waaye du wàññi mbaax dara mu doon daanaan loo xam ni kenn du ko lam-laamee ay kolle ay ay waay la fu ne la toj avant man may nekk ci Youssou Ndour moom moo njëkk a nekk ci Youssou Ndour moo tax affaire bi du hasard moo tax man mënu maa ni ma am Youssou Ndour fi mu tegoon Ami Collé jël jël jël ma man tegaat tegaat ma foofu moo tax it awuma droit man su ma doon def foofu cinquante ans dafay mel ni un an laa fa def parce que man noonu laa mel parce que euh, li naan do genn golo gudd na waaye loo si laal borom yëg ko Ami Collé ma koy ñaanal gudd fan ak wér hmm. te di ko wax ni mu ñëwaat parce que aar bi dafa doy waar aar bi dafa doy waar lu nekk a ngi ci lépp nag kenn mënu ko wax hmm. mais yàlla na yàlla musal ci cat. amiin waay cat bu reyul semmal. ak noonu. waaw ak noonu. Mhm. cat bu reyul semmal. Mhm. moo tax man doo may gis may taxawaalu wala may dem fenn parce que je très bien là où je suis man fu ma nekk kontaan na ko trop. bopp te maa ngi fa yëg sama bopp. Mhm. te ku ñëw seet seet ma sama kër dina xam ni. biram mi ñàkkul ah, yow tamit yuusu rek ku ñëw seet sama kër di nga xam ni biram mi mu ngi liggéey waaw man nag damaa nekkul ci buuxanteeg xëccoog yooyu ak nekk ci internet bi ubale ko yooyu day tax bu ëllëgee say doom dañuy màgg say sët dañuy màgg fekk ko fi ñeneen ak ñeneen dañu màgg fekk ko fi mhm. moo tax wax ju bari amul solo liggéey rek am solo macha allah am na solo nañu demaat ci beneen morceau buñ dellisee soo ko dem ci aasi ci rubrique délire bi nga xamante ne tey moom la ban ma def vidéo bu bees bi ok problème muy problème waaw mu ngi toj réew mi ngi toj réew mi nekk ci réew mi rek laa wax ba pare da wax da nga waxal ñëpp na gaay dem gaay dem youtube mhm. abonné ci moom ba pare seetaan ko waaw waaw fan ngi def clip yu garaaw yow yaa am problème ñii ñoo am problème dafa doxaloon waaw waaw waaw waaw waaw xam nga lii neex na yàlla ko dimbali te yàlla tax dimbali ko taxawu ko dimbali ko ñi bëgg a wax te mënuñoo wax man Biram Jeng ma waree a dem te amuñu ay moyen man de ñoom laa bëgg a waxal ragal yëpp yàlla def ndax boo fi yaakaar yàlla la yaakaar lii mooy la dëkkee di bay babul di ko dunde ñi ñàkk ñooy liggéey ñi am di ko dunde foo yaakaar ndimbal ba dem fa da lay dimbali ko jamonoy tey jii nii lay demee waaw ku mën sa morom wan ko koy te du yow waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw nga ni Papa benn bopp la kenn mënu koo xar ñaare. Sénégal ooy problème yi bari na loolee tey ma wax ko li fi xew tey ma wax ko waxal ñi feebar. waaw tey nga te ñi xiir te amuñu lu ñu lekk ñi mar daal. te amuñu ñoom lu ñu naan ñi nu tëj ci kaso yi te defuñu dara wuy wallaay ku ñuy wallaay wuy walloo waaw sonn naa Babacar gisee sama yaay gisee maba almaba yaasin jaay biram kuma jaay ali maba soosey alaajey alin mbaay sama baay jang saala yëga way ndey asana la geji njaay pende ma xujaak biram ngoor kuli ab saak ma marasana la yama jooja batal mi ci nande ku faasa may doomi géwél tàccu leen lii séeréer yu umu tradition umu ba koy umu transitaire bu mag bi ci Sénégal xam nga ni ñaamuloo Cheikh oo oh, Cheikh dinaa la wayi xalifa mbergaan séeréer faama mbergaan am tuuti problème technique si clavier bi rek. pour ñi nga xam ne ñu ngi dégg son bi rek. ñu nga xam ne du ci gars yi. débat son bi mooy ah, daw mais nag dina nice. na est là nice na ba noppi. li tax mu nice mooy da ngaa danga ngaa da ngaa ëmb problème ci réew mi yëpp ci biir morso bi. Pape xoolal ma clavier bi ah. ci clavier bi la ok ok. Euh, li tax bu baax woy wi am solo mooy. danga boole problème yi ci réew mi bi ouvrier yi am problème bi ñu ci kër yi am. problème bi ñu nekk ci hôpital yi am ñu ne ci kaso yi ñëpp woy ku ne mën na ci gis boppam aas yi waaw mu ngi mu ngi mu ngi woy waaye sama yaram a ngi daw ndax euh, ko ko déglu mm-hmm. euh, di nga di nga wax ni ki man la woyal te bàyyiwul kenn donc problème yi nga xamante ne moo nekk Sénégal woy na ko mm-hmm. waaye it euh, Mara mm-hmm. nañu waxante dëgg waaye baat bi baatu lan la tubaarkàlla macha allah baatu wurus la a te woy moom bu diglewul yeetewul njaay dootul woy ay naxaat man dama gis Biram Njeng bu majeur Birame Dieng bu bu bu fi bàyyi boy yi moom. nekk ci di def li mag ñi bëgg mooy. Mm-hmm. li naan woy bu déglawul yeetawul ay mm-hmm. naxaate la. dëgg la moom mi ngi xool li ñëpp di jooy moo xam ne lii dëgg la lu ne fàng la kenn du ko mm-hmm. jeex. mu wax ko. te li ñuy xaar ci rappeurs yi noonu lañ koy xaaree ci woykat yi. parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañ ñuy jooy metti na. ñuy jooy ñëpp dafa metti ci ñëpp nag. muy mën ak keneen ak keneen. li Birame di wax li nga wax maaraa dëgg la. biram li muy waxal sénégalais yëpp ko ñoom nga wax ko ci suuf ak nga wax ko ci kaw. parce que dégg naa mu woy ba ne ñu bëgg a tukki te sax euh, mu jafe leen. biram ñoom sax ñoo ngi ci problème. gis nga dëkk bi. nu mu nu mu amee ñu nekk ci dëkk bi di seetaan ñu néew di doole noonu la amee ñuy dimbali waa dëkk bi. Mhm. gis nga série Clara ku ñu wax Dóoru Gueye. Dóoru Gueye man maa fekke man fu ay mag di ko xaaree mu ñëw taxaw nuyu leen déglu leen jox leen seen numéro jël seen numéro ba pare yëkkatee enveloppe teg ko ci seen loxo def kat lu baax la. maa fekk de eh, man maa fekk teg nii sama bët. dëgg ñëw di ko aborder foog ne kii mu ne la eh man damaa bëgg ku ku ku open. Mhm. ubbeeku déglu Sénégalais yi. yow doo waxantu ku mel noonu nag bu ñu nekkee fii ci télé di liggéey. dañ koy waxal lu baax li muy def. Mhm. nañ jàppalante suñu biir. bu ñu jàppalantee rek yàlla taxaw ñun ñëpp. Mhm. biram mi ngi naan se. biram ah. lu la inspiré nga nga bind morceau tudde ko problème ba pare woy problème yi ne ci réew mi. waaw ah, parce que man li may dund loolu Sénégal yëpp di dund euh, gisee benn sénégalais toog këram am lépp lu mu bëgg am na beneen sénégalais boo xam ne tey mu ngi toog di souffrir. Mm-hmm. moo tax man je préfère ñi nga xam ne ñoom ñu ngi souffrir. Mm-hmm. ma wax ma waxal leen. Mm-hmm. parce que man maa yor seen baat ñoom mun noo wax man mi nga xam ni man maay toog ci télé yi maay dem ci rajo yi. di wax su ma toogee rek war naa wax ci ñoom. parce que loolu moom mooy suñu rol waaw waaw way bu déglawul yettawul ay naxaate la comme ni ko te dëkk bi nag ñu wax kook ñu bañ ko wax dafa metti de bilaay walaay dafa metti man fi ma dëkkee rek xam naa ci dara waaw maa ci banlieue bi xam nga saa boo xëyee nga gis loo xam ni dafay metti sa xol mais doo doo ci mën dara mhm. parce que yàlla mooy maye waaye yemalawul waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor réew mi mhm. jiite ko nan bàyyi xel mhm. ci ñi nga xam ne danoo ñàkk parce que ñoom am na ci part de responsabilité bu mag dëgg parce que ñoom ñoom ñooy réew mi. Mm. ñoo koy doxal. Mm. donc war nañu mën a xool li nga xam ni dafa metti muy dund gi cher. Mm. ñu wàññi ko. dëgg la nit ñi mën a dund si jàmm. boo gisee nit ñi di jël gaal di dem di rey seen bopp. dafa metti koo xëy mënoo ko jox benn gerte caaf bu mu yëy. mënoo ko toogloo. Mm-hmm. parce que góor góor su ne góor nga. ku si nekk da ngaa a liggéey teral sa yaay teral sa baay. comme ñëpp. loolu rek moo tax ñoom ñoom ñuy dem. mais du question danoo dëgër bopp wala danoo yàkkamti wala dara mais lool la dëkk bi moo metti rek. macha allah am na solo Birame loolu la ñuy xaar ci artiste être la voix des sans voix lu am solo la li askan wi dund te mënuñu ko waxal seen bopp yow mi sa baat yegg ci kaw nga wax ko ba ñu ko war a dégg dégg ko. am na solo le temps ñu bàyyi la nga souffler en attendant ñu xool clavier bi nañu dem ci aas yi tey rubrique délire la ñuy indi euh, bu ko defee gars yi reetaan aas yi. waaw euh, indi naa euh, trois yoo xamante bi nag moom. dañ koy déglu nañ dem déglu ko ñu dem déglu ko ñëwaat. acca Mouhamed su baaxee nañu dem. nee na man lay. waa bi dafa am ci loxo yu muy jóge dégguma damaa gis roi bu bees senegal waaw bu dul Mamadou Lo damaa gis beneen roi des ci Sénégal. man suñu dëkk bi jigéen ñi dañoo rafet ba bëgg de waaye bañ sañsee pare beñe rek la ñuy lekk xoole kellam solo waaye ma ngay topp ci beñe bi ngam pare ñii yàlla nañ dee rek Ah. waa bi dafa am ci loxo yu muy jóge dégguma damaa gis roi bu bees Sénégal waaw bu dul Mamadou damaa gis beneen roi des arènes ci Sénégal man suñu dëkk bi jigéen ñi dañoo rafet ba bëgg de waaye bañu sañcee pare beñe rek la ñuy lekk xoolee kellam sol waaye ma ngay tepp ci beñe bi ngam yàlla nañ dee rek laa koy digal bi dafa Sénégal. waaw bu dul Mamadou Lo damaa gis beneen roi des arènes ci senegal man suñu dëkk bi jigéen ñi dañoo rafet ba bëgg de waaye bu ñu sañsee pare beñe rek la ñuy lekk xoole kellam sol waaye ma ngay topp bi ngam pare ñii yàlla nañ dee ba ngay lan boy loo bëgg ndey cent ma laa ngay ndey cent ma ne ko ma la ndey demal nga ko loolu la ko tontu mais boobu ren te boobu day ñaan de. Sénégal li fi koy xam loolu xale yi léegi. yow nag problème yi yoroon mooy problème bii nga ñu waroon woo. li lépp ci problème bi la. problème bu mag baa ngi nii. li lépp ci problème yi la. waaw waaw borom beñe bi nag. waaw kooku tamit la. ñu ne xale góor ñoo xas nag de xas na xale jigéen sénégalais yi de. mais da ngeen a rafet mais bu ngeen tëjee ba pare bi la wax métti jamono di lay wax mais nee na jekk ngeen mën ngeen a sañse waaye bañ rek ngeen di. nee nañu yàlla nañu dee taga ñu xas ñu nag. am na solo Asi. mooy noonu li muy déglu saa su nekk yaa ngi indil na ci TikTok beeg lii daal di gars yi am na solo. Ah, sa dimanche ni feeñ sama gars yi. waxuñu de. ñan la wuy ma waaw waaw maandu ay waay tey ngaa maandu ba nga la bëgg a dugal léegi la ma dee dama xaar ma dugal maa. man mënu maa dugal nag xam man mënu maa dugal de. waaye nag du tee mag bu dee wax na lu dul dëgg nga ne ko da ngaa kañ. li nga eh, xamul yéen a ngi dugg ci ku ma la yow palaasu yàlla kenn mënu faa toog. ah waaw nag eh, ah yow eh. yow bàyyi ma ah, ah kon kon xanaa mënul. non mën na ah de bàyyi ma non mën na waaw ku mën moom day feeñal dëgg. comme gis na ne beneen roi des arènes bu dul ah, Modou Lo. ah ma balaa ngeen mën a. maxu Modou Lo bi maxu <laughs> ce que combat nekkul moom est-ce que gisul combat premier janvier bi. non ah, du boobu léegi ah wala ñumte la rek. maaraañas nañ ko ko jéggal vu que sénégalais yi jox nañ ko bopp yu bari yu muy wax dañ naan euh, kii na. léeg-léeg wolof day wax tombé waral ay gàpp. donc loolu day am aasi parfois. waaw yàlla yàlla muy dem faar bari na yàlla muy buur sëriñ keneen ak keneen a ci yem gannaaw yàlla yonent bi gis nga dañuy éviter di wax yenn yi je dis je parle de avec personne mm-hmm. nañu bàyyi di wax ni que lii fekk ñëwagul ndax moom moom mu di wax sax waxam bu yegg yàlla la neex waaw sooy nit suy wax nit suy suy suy def su waree def dara mm-hmm. jarul kenn di génn di naan lii dina am wala lii dina am ñu aay sax est-ce que ñu aay waxuñu et dafa bokk sax ci liy yàq làmb wax na loolu garaaw de di déstabiliser mbër Papa Ndiaye ñu aay ñu doon gis di déstabiliser ay supporters bi keroog nga toog bañ la suba la làmb ji nga génn diw day daanu mais ay mbokkam duñ nelaw. mais kii li mu la wax am ñu ay waxuñu. man làmb di ñëw li ci am man mun naa la ko wax ay Ndiaye waaw bul wax def ci dama leex de dama leex lu doy caaxaan de xam nga maa bëgg am seen tamatin bi ngay wax lamb dimanche bii. ku teel te ñëw gis. nañ dellu ci biram biram dañuy defaat ci beneen morceau laataa ñoo ñëw ci projet yi. ak waxtaan euh, ak tàggatoo beeg yooyu noonu mayaat nga beneen morceau. mais nag Mara. ànd nag koo xamante ni kee ngay gis réew mi mm-hmm. bëri na morceau yu bëgg ci sa xol mm-hmm. li nga koy gis mu simple ni yaru ndaanaan la da koy rukk ba mu nooy bérigo yi def duñu yëngu da koy tëgg bëri na morceau yooyu dëgg ci sa xol bi di neex mm-hmm. moom mi moo ko keree ci loxo dafa dëgg ca kaw ca kanam li bërëm di wax ne ñu mel ni war taxaw ah maala ñu mel ni ñii nguuru Sénégal dañ leen war di jàppale di leen dimbali ñu am ay studio di leen dimbali di taxaw parce que ñoom dañoo bëri xale yu ñëw naan damaa bëgg def musique damaa bëgg def musique te moyens yi du fa ne. dëgg la nan leen taxawu. Mm. surtout maa meeru yëmbal. Mm. ñoo la dénk Tafa Sock mii nga jàppale ñu ko. am na solo ay waa jàppaleel ñu Tafa Sock mi sonn na de. vu que vu que dix minutes moo ñu dese est-ce que. ay Papa Ndiaye ñu tàggatoo ba noppi. non non la tàggatoo ñu joxe projet biram yi après ñu soog a dem ci single dernier morceau bi. nga tëjee ko je pense loolu mooy gën. Euh, biram euh, liggéey bi fan la toll yaa ngi ci ginnaaw Youssou Ndour ba léegi mais lan ngay prévoir pour sa carrière waaw li ma prévoir mooy def naa album bu bees tax su dee ko gis-gis muy génn le 30 décembre bi passé mais boo gisee pro promotion bi xaw a des parce que dama nekkoon tournée ak Youssou Ndour. xam ne doo suñu promotion bi. waaw dëgg la loolu moom du yoon moom. yow waroo génne album. réew mi duñu yëg ne Birame génne na album. wax dëgg yàlla dafa bëri événement. yu ci tax ñu bëri bàyyiwuñ ci bàyyiwuñ ci xel. waaw te xam nga tëgguma ci boîte yi. Mm-hmm. kenn déggu ma si yenn affaire yi moo tax album bi ñu bari xamuñu ko. Ah. mais mu ngi si YouTube bi mu ngi ci euh, plateforme yëpp. ok ki ko produire moom mooy Samba Dioum. Mhm. sama benn xarit. bu mhm. baax nekk Amérique moom moo produire album bi. Mhm. album bi nag morceau yi si nekk macha allah. ok pour dugg si YouTube bi di nga gis lépp di gis lépp incha allah. incha allah am na solo euh, bu weesoo loolu lan lañ fan lañ la mën a xaar prévoir nga pour woote benn ndaje soirée wala lu mu mën a doon pour say waaw instant war ngaa dem grand théâtre nag. waaw mais ñu mel ne yéen yéen a war a jàppale rek. ah non non déedéet jàppaleen ci déedéet jàppale gi day fekk yow da ngeen ciy nañ dem grand théâtre ñu dat xam nga ànd dox ko ko artiste amul lu dul lu dul lu baatam oui ma fi nga toog. waaw defal sa anniversaire. tuddee ko Youssou Ndour ñu jàpp ci. waaw ñu jóg def ci dafa soog répété parce que toll nga noonu ci réew mi non toll nga noonu la noonu ci réew mi defoo woo fi ñaane woo fi nga sa kër comme li mais grand théâtre yaayee na ah yor kër de këram la yor de moo ko moom. waaw mais loolu loolu loolu beneen jàpp ñàmburam loolu la. waaw mais man damay wax ci plan de carrière. voilà maanaam liggéeyam. boo defee album ba pare. Mhm. tey war nga mën a fête par exemple say vingt ans de carrière. wala biram fête anniversaire dem Sorano wala Grand Théâtre woo ndaanaani tuddee leen ko Youssou Ndour ñëw. maa ngi ci de xam naa ne yàggatul dara bu ñu paree léegi ñu waxtaan ci. yàggatul dara léegi léegi maa koy produire loolu bañ laa ko waxee ci 7TV xaar. waaw Birame Dieng waajal affaire nice te bëgg naa ci lëkkaloo génn. loolu jéem a parce que vraiment télé bi moom. waaw la boo xam ne télé Sénégal ñëpp ko moom. moom la ñëpp bëgg. waaw ah, ko moom man dama koy seetaan tout à fait. Ah, on se dit à demain. on se dit à demain Mara donc ñu indi euh, yeneen astuce euh, plutôt yeneen euh, rubrique mm. su ko defee rek ñu tàggu mbokk yi waaye di remercier bu baax a baax sunu invité ak ñu mu àndal. Mm. à demain alors incha allah. Pape Ndiaye. man de xanaa di gërëm sama waa te kenn wul ci ginnaaw am fexe na ba ñëw. Hmm. ak ñi mu àndal ñoom ñi ñëpp. waaw li muy li muy li muy ànd ak Youssou Ndour nag moo tax gis nga ko. Hmm. waaw voilà. Hmm. moom it ma gërëm ko ci li muy ànd ak Youssou Ndour ba pare di xool ci moom ndax moom ngay ànd ak Youssou Ndour buñ la woowee nga tardé. mais professionnel nga. waaw respecté nga yaa koy teg ci yoon te li may wax rek kenn déggu la ci dara. li ci des nag mooy sénégalais yi bëgg nañ la te foo woote man maa la ko wax di nga diit loo yaakaarul. wallaahi bëgg ndax sa yaroog sa dal ak sa teey vraiment di gërëm nag suñu waa saltige bu mag bi. dem sa mu baax mi nee maa ngi seetaan Pape kii mën naa. mooy borom le da koy jàmb après. borom le 16 décembre. le 16 décembre nag sa waay ah. def ci code ba ci kanam dinañ ci loolu maa ngi ci biir. bàyyil ba Papis Mbaye pare. loolu maa ngi ci biir dugal ci Demba <laughs> ni ma ci duggee. bële ngay ñibbee de. xaaral woyal Demba Senghor. booy ma préparé te xam ne maa ngi ñëw. waaw taalibi Mame Baye bi woy ko ñu ah, moom yàlla buur bi lay séedéel sama mbëggeel ci yow nit ñi sax de xam nañu ni ma la bëggee waay naa ko fu ne dis naa ko fu ne jëfe naa ko fu ne naa la fu ne mbëggeel su doon géej naan naa ko ba du des dara dara dara dara yaa ma ko jaral mbëggeel du caaxaan bul koy fowee chéri whatsapp taxul ma bëgg la chéri facebook taxul ma bëgg la snap ak instagram taxul ma bëgg la gi ma la bëgg ci te xam naa ni yàlla rek de la koy seedeel baby mbëggeel du bul koy fowee bëgg nga ma bëgg naa la fii dara du fi ñaaw Adja Dieng bëgg naa la Asanal ak Widi Njaay biram door Adja Dieng bëgg naa la yàlla boole waaw jaras li ma doon seet ci yow gis naa ko ah looloy mbëggeel diggante bi way sa bopp dafa neex waaye na fekk nga xam say maam waaye magget gi sey sama yaay gise maamo alma ba yaasin jaar el basir bel ko ma jaay ali ma ba soose yaay yaa ma tànnal bàyyi bu biram li nga wax ci bëggeel dama neex yow moom way ci diggante bi waaye ko am kër ndey am nga kër baay waaw waaw waaw Alioune sama baay Assane naa la wéji Njaay penda mbokk jaag biram ngoor kuliyaat sama mara sanaa la doomi jaalo yaay kila Alaaji Alioune Mbaye Dieng Papa Njaay Khalifa Bergan Serigne Pawa Bergan ko berga man doomi géwél laa yow bira boyal xalifa berga siri fama xalifa berga e waay siri fama berga siri fama berga no borom asalem xalifa berga moo may ñawal mooy sama waay xalifa waaw waaw El Bachir Gueye Demba Senghor eh, eh, eh, yow nonooy Demba bu mag bi laa yi woo taalibe Maam Baay Ñas Demba delloo ñaanul baaxul ako bëgg Maam Baay Ñas yaa ñaanal Papa Njaay ak a bëgg maam baay yaay ñaanal maara ñas ku bab dalay yaay ñaanal aasi ak a bëgg maam baay dinaa la way demba malik boore dem dem dem sajukaay ay waay yus jur gi yus kat wu yaay suus suus kat suus suus suus suus el basir el basir gay teli el basir te ñu yëngal ba mu yëngu ma Papa Njaay ngi bello te ma yëngal Sénégal ba Sénégal yëngu mat Mara ñoo ngi bello tey ma yëngal Sénégal ba Sénégal yëngu mat Asia ñoo yëngal waay ah El Basir Gueye waaw waaw Siri Gueye ma baa dey baayam waaye ko am kër ndey am kër baay ay Zeyna El Basir Gueye Alioune Mbaye sama baay merci beaucoup